jàpp sa juróom-ñeenti maam jaay jeneen maam joo gis donte du sa maam di nga xam njëgam. non moom lu muy liggéey moom la concerné Lamine waaye man li may liggéey xam naa ko te bu bés baa dinaa xool wan. man Modou Lo dëkku ma parcelle ba mu nekk sama ambassadeur. ci lamb ji ngeen bokk. lamb ji roi des arènes ñoom daan la man doonagul sama roi des arènes bis bu ma daanet naa ci bokk. bu koy jël di tëdd am mu jël day tëdd day ñibbi dañ koy lëng mu ñibbi. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum monde entier man la Bombardier maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 8 mars incha allah si diggante Franc ak Bébé Saloum euh, maa ngi jox ñëpp rendez ku ma fa dégg nee ba massa sant yàlla julli ci yonent bi sangu sang yi gërëm suñuy ñaari wéejur di yërëm sama ndey di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko fa suuf ay fe ci kawam moo ko yaay ya ko fa fekk ak yaayam fay fekk yëpp di wax onsu billah bismillah inna waliyu yàlla onsu billah bismillah inna waliyu yàlla maa ngi gërëm sama sëriñ sëriñ Abdul Karim Mbàkke naar ma moo fay di ko ñaanal mu gudd fan lool te ànd ak wér ba lay ndax dundam am na njariñ di sant sama sëriñ sëñ Sidi Mbacke alxuraan borom jàmm gën di sant sëñ Babacar Mbacke mu kaboro borom Kaolack di sant sëñ Basiru Kan borom Mbaaleen di sant sëñ Masamba borom Ngàcc di waaj maagalu Ngàcc bu baax a baax di sant sëñ Babacar Ndiaye ak sëñ Omar waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di wax combat bi seen combat ngi sant bu baax a baax. nga am combat war a bëri le 8 mars sa diggante ak Franc wàccaay bi fan nga ci toll. waaw ñu ngi ciy toll comme nañ ci tollee woon ndax bis duñu dépassé ndax bis bu na romb na fi Euh, ku jàpp sa juróom-ñeenti maam Ndiaye juróom maam joo gis xam njëgam. ko. ku jàpp sa juróom-ñeenti maam Ndiaye jeneen maam joo gis donte du sa maam di nga xam njëgam. cey nga Franc mi nga woyaale di bëre. xaw ma ko ci mbër yi laa ko compter moo tax ma lim juróom-ñeent yi te day ñëw fukkeel ko ci kàttanu yàlla. xamoo Franc. xaw ma ko ndax ki nga xam mooy ki nga dëkkal nekk ak moom. mais seen nit muy dem moom taxut xam nit ko du ma seede ci moom lenn lu ma xamut wax dëgg yàlla xam naa ni mbër la benn adversaire bu benn tàkkusaan la waa bu ma waxee xam nga ko maanaam ndax xam nga ko ci làmb xam nga ay qualité am xam nga ay ay défaut la la champion la champion bu mag a mag a mag a mhm. nga war a bëri ak moom ñëpp ni Bébé Saloum jël na risque miin naa ko de te du tey laa ko déggee sa gémmiñ te du tey laa ko déggee ci gémmiñu keneen yàgg naa dégg risque yi nag surtout parcelle googu yàgg naa faa dégg risque waaye dama leen a da ngaa yeb waa parcelle. waaw lu tax nga yeb waa parcelle. ah dañoo ngemb Garga indi ma yóbbu ko top 5 tas Ikri ba Ikri ba benn la woon de maa ko tas. ma nga dóor dóoraat. ma ne maa tas Ikri amagul woon. boobu ma nga ma nga fii laa ñu Ibrahima de ñëw ma yóbbu top 5 Xaadim Gadiaga ñëw ma yóbbu ko top 5 def ko président Ikri. kon Xaadim koo jig lool moom dama koo daan yóbbu ko def ko président Ikri. Franc nag nee na ña nga doon daan ak moom. waaw ñu ñu ñu ngembaat benn leet naa indil ma. léegi dama koy daan ci kàttanu yàlla xaar seen adjudant chef bi pare. est-ce que Franc ak ñi nga doon daan benn la. déedéet ndax Franc Franc la ñeneen ñi ñeneen lañ mun mun na gën a métti mun na gën a yomb. est-ce que gën ta nekk ñooñu xale. su ma ko magee du lool de waaye nangu naa koo mag amul problème ba bis ba romb après ñu xool. yëpp gi ngay bu waa parcelle far nga ko teg. damaa mën a bëre de te du ma arrière de. moo tax nga yeb leen. moo tax ma yeb leen. nee na bis boo paree ci moom kaar boo seen muy demati parcelle sax doo ci dugg. ah jàpp naa tey ci guddi sax parcelle lay reere ci sama mag alaaj Jóob parcelle moom moom ëpp ëppalewu ma fa ndax ay nit nañ fa bawoo ñëw seetaan si ma ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. benn bàyyi ko seetaan si la téeméer dana fa bàyyi ko seetaan si ko. waaw waaye moom foofa noonu su ma demee ba loolu mun faa bàyyi ko seetaan si ma sama koñ amu fa dara. sama koñ waa Caaro yëmbal benn baraag Malika Kër Massar amu fa dara ñëpp man la ñuy topp ma ci koñam dara kon ëppale naa ko loola. nee naa ko nag Bébé Saloum bu fekkee da ngaa bëgg a basé wu ci rëg-rëg bi mu bëree woon tax nga jël ko jàpp ne combat bi noonu la yombee ci yow yaa ngi ci erreur waaye nee na jàpp na ne sax bee gën a gaaw te mooy gën a yomb. waaw rëg-rëg day combat boolewuma ko ci sama carrière xamul tax. yaay dafa gaañu benn tàddu war na ñaari mbaam sama waajur nu ma mel mooma pour bu ma ko ñàkkee différence bu en jours ma dem bëri ji ceeg rek rek su ma ko daanee sax waa àdduna war nañ xam ne kon su nee bëgg naa sama yaay du dëgg talu ma woon làmb jooju moo tax ñàkk gi ma ko ñàkk boolewuma ma ko sax sama carrière sama bilan carrière maa ngi rek rek bëri nañ boole ko ci. yàlla na nga dundale Franc dundale ñëpp dundale ba ba le 8 mars bu ko defee ñëpp ñëw ak seen conscience tranquille ngeen wanante ngeen fas yéene ngeen jëflante fas yéene jëflante ak moom. li ma fas yéene jëflanteeg Franc mooy waxiirlu ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaam wéeru ci Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñaan Serigne Touba Ndam. loo fas yéene jëflanteeg moom laa la laaj de. loolu laay fas yéene jëflanteeg loolu wakiirlu la. mais nag arbitre moom bu génnee seen diggante. bu génnee suñu diggante bébé ku ne xam na ni moom nag wax dëgg yàlla. Franc nag neen daf bëgg ngeen sax bu jaaga xeex. du ko def de dig na la lum dul def de. dig na la lum dul def de. Hmm? waxee ak yow. def de. yow kay la ko dig. yow la ko dig yow mi mu waxal loolu dig na lu mu dul def de. mais yow la bëgg nga ñëw fekk ko ci xeex. barki sëñ Abdou Karim Mbacke mi ma yaakaar su bëggee day signé ma signé ñu teg alxuraan. man ma door ci ni su ma dee sama tànk bu jéggee ginnaaw ma ma làmb ji nañ ko jox victoire su ñemee ñu xeex kenn du làpp kenn du jàppante waaye du ko def de dig na la ko waaye du ko def de. du xeex ñëwut ko def. Franc di xale nee na xale la dafa am. waaye kan ba ma dalee bëre 22 combats yi mu bëre kan nga ci gis mu xeex ak man. moom moo ko bëgg. wax ma kan nga ci gis mu xeex ak man te kan moo ko mus ta wax koo wax mu ne dama lay duma dama lay daan te bu arbitre soufflé ba ma kàbbar ut si la nga fàtte loo waxoon. bu arbitre soufflé boo kàbbaree ko. walaay dina fu mu tëdd lay xool waaye du xalaat mu muy xeexee waaw du xeex duma xeex loo te bërëb yi bëgguma koo daanee sax ci xeex damaa war a damaa war a corriger waat waa àdduna wan leen ni leen la l'homme kii propose Dieu dispose. jaam bi li mu bëgg rek la xamaale am yàlla koy dogal. dëgg la de te damaa waane damaa pànk de te damaa mën a bëre te bis du ma dépassé. côté bëre bëre bu jaxasoo yéen ñaar ko ko dàq. billaahi su amee àdduna darati seen gémmiñ suñ jargandaloo àdduna dar seen gémmiñ de buñ jargandaloo ah buñ jargandaloo yéex yuux dina jub fuñ ko foogeewul de. kon bu ngeen wuree nga nga juumloo ko. loolu laa gën a bëgg xeexu ma nooy def bëre. ba ci ki nga xamante ne lu ñu fi teg mu jël ko. ndok xam nga làmb balaa neex ngay bëreeg waane bëreeg ndaanaan bëreeg koo xam ne dañ ne ay dafa neex say bëre jël ko kooku noonu te loolu daa dajee ca moom yàlla na ko yàlla suturaal mooy ko loola mu jël lépp mu jëkk ko waaye ca bis ba yàlla na ma Seydina Mohamed tax teg loxo. mënuma kenn nag yàllaa mën maa ngi wax lu ci yàlla di wéeru ci yonent bi di ñaan Cheikh Ibrahima Fall làmp ci doole Sëriñ Tuubaa yàlla ma yàlla may ndam. loolu laa sëñ ci lan nga basé ba jàpp ni yaa ko dàq da ngaa seetaan ay combat xam say qualité wala lan la. na àdduna jël ay combat teg jël samay combat teg bu ñu nee ñoo dàq bëre d'accord naa bu ñu nee maa dàq bëre d'accord naa man ay maa dàq bëre moom du ma ko wax na nit dàq naa bëre nit nit daan ko ñi ma daan ñëpp maa leen dàq bëre Sénégal ñett ñi dàq bëre ci laa bokk te bu ma neexee ni maay pay sa defet yëpp ñi la daan yaa leen dàq bëre bëre moom yàllaa ko def ci man. kon de bu ñuy wax bébé leneen la ñuy wax rek. kon Franc yaa ko dàq bëre. intense ñu ma daan kan la ci Franc gën a danger Modou Anta Franc da ko gën a danger. Garga Mbossé Franc ko gën a danger. Jadli Franc da ko gën a danger. Gambien Franc da ko gën a danger Ibrahima Deux Franc da ko gën a danger Mansour Diop Deux Franc da ko gën a danger et cetera et cetera ñooñu te ku ci ne d'une manière laa la daan. top 5 Zazu Ndiaye. top 5 laa ko yóbbu. d'une manière ku ci ne d'une daanee kenn bokk ceeg sa morom nu la daanee mën a bëre foofu lañ koy takkee ci nit tey nga takk lii suba nga tekki takkaat leneen ñu koy xaar nga faram fàcc ko indi ko feneen loolu lay xam ndax Franc daal na xam ne ku yëy ba yëy yàq bu nga yàq yëy ko tu ah loolu de moom xam naa ne Franc du ko mën a tekki ndax njaago la ku yëy ba yàqu yëy yàqu bukki yëy nga yàqu yëy katu yàq waaye nag dafa am fu mu jaar ak Mbaye de ñëpp ne ko njool ngay xeex xeexkat ngay bëreel technicien mu ñëw daan ko ci cinq secondes moo wax la leen lu la jaaxal làmb ji ba mu daj kan moo ciy bëree ñaari pied ñaari tànk. laaj naa la ko. wax ma ko bu yow yaa ngi leen di seetaan nga ko. wax ma ko yow wax ma ko yow. kenn du ko ci bëree man ñaari tànk lay bëree bu jour ba tànk bu Franc teg tànk boobu laa koy tegal pour jege ko ñu xeex bëre ñaari tànk lay bëree loolu la sama borom te bu ci nekk la bee def la beneen bi def tànk bu mu teg boobu laa koy tegal jege ko ñu bëre ñu xeex bëre mu duma ma daan ma mbaa mu duma ko daan ko. eh waay Samba Bébé Saloum waay yaa wóor le 8 mars tànk bu Franc teg boobu laay teg ñu jàkkarloo man ak moom ma jege ko lool mu jege ma lool duma ma daan ma mbaa mu duma ko daan. kon moom da ngeen ndax moom nee na dafa xeex la bëgg. cinq minutes ndokk nanu xeex. ndokk ku naat ci guuxum soow woo nga ko ci lu mu miin. te bëgg ko te bëgg ndax mooy wéral yaxam kenn du yow. barke sëñ Bamba. moo tax nga ne nag ci ci kii ba nga jëm nu mu tuddati nga da nga koy daan dem ci kan général <laughs> général Lamb seen ambassadeur bi laa seen ambassadeur parti général Lamb kenn doonu ko fi xamul tax kenn doonu ko fi. Ah. Lamb boo taxee ni maay droit de am ko neexee parce que daanu ko waaye nag nangoon nañ ko làmb ni comme moo jiitu jël li ñu soxla rek kon mooy droit de moom mooy ambassadeur waa parcelle. du sa ambassadeur yow. man Modou dëkkuma parcelle ba mu nekk sama ambassadeur. mais ci làmb ji nga bokk. làmb ji ma daanee dinaa ci bokk. Modou du sa roi. la doon roi. du sama roi nag daanu yaa baax yaa gore. mi ngi ngemb di ma indi indi may daan rek. waroon nañu xanaa nag bu ngembaatee. wulli nga wulli nee na yaa baax donc léegi nag li ma ci metti mooy nangu nga mbëri wulli. moo doy moo doy mbërëm léegi transhumé gën a jege gën a yey quoi gën a jege gën a yey wulli maa a nag moo tax man la war a a faral man moom laa faral comme maam ak liiru jaan moom laa faral waaw. <laughs> mais sa combat ak ak ak faral. combat bi bu yàgg yàgg gi est-ce que arrangé na la. liggéey nga ci côté boobu bu baax a baax. koo xamante ne day day day day bokk ci ay tournois yoo xamante ne ay 128 mbër ñoo fay bokk ay mbër yu bari nga war a bëri. xam nga li gars yi jaawale. ngi mel ni nga ne Auchan bi ak bitig bi. ñoo yam prix. Ah. la muy jaayee gën a bëri moo tax mu wàññi ca tuuti ngir dabb jiwaat bénéfice am ca kaw. waaye bitig bi. day fay impo day fay patente day fay lépp kilo suukar mu koy jaayee 600 Auchan di la ko jaayee 550 calculeel moom bu xëyee du jaay saaku suukar Auchan boo demee chaque jour mu jaay une kon lu mu ñàkk ci fukki dabi ji ko ca la ca des. Auchan dañoo muus. dañoo muus loolu la yëf yi àdduna. kuy Auchan. xaw ma ku mu de. waaye bis ba daal dina neex loolu de. yéen ñaar moo ci Auchan bi. xaw ma kuy Auchan de naa ko bàyyi jaam ñu xam. kan mooy jàll bi ci boppu koñ bi. ah ba tey dañ ko rek xam nañ bàyyi lépp yàlla. waaye daal li ma xam mooy làmb ju neex a neex lay doon ju neex lool ndax nag ñaari bërikat lañ. arbitre mu teg ne xeex bi wala ci bëri simple bi. bu arbitre soufflé bu tegee xeex ndokk bu tegee bëre ndokk bañ naan banque leen seen tànk fekk na soccet foogu bu yàgg Franc lu mu indi gënal na ma. bañ naan banque leen seen tànk. fekk na soccet foogu waddet dong lay xaar. bur wi rek mu na waddat dali fële. mooy soccet bi. <laughs> Lamine yaa ma gën a dégg bu fekkee da ngaa moo la ko ci njaago mu ñu koy waxee ci njaago wax la ko ndax mu dégg ko. waaw kay boobu baax. nan lañ koy waxee ci njaago ma wax ko. wax ko ko. <laughs> koy bëri kay war ngaa xam ne sax li muy wax. salte laa ko fekk moom Papa Sow góor a soog ba ci ngeer mi daanoon même Sall ñuy puus rek. gis nga na ànd ak président CNG. ànd ak euh, ministre du sport. Matar Ba ànd ak làmb jépp ñëw jour ba ci kaw la ñuy toog maa rek ci biir géew bi ak maa mën géew. Batika nee na 14 la franc am. 14 la franc am. ah loolu de ay wax seen wax la rek. nee na da lay dóor ba baan sa kaw. mun naa ne de waaye mun naa bañ a nekkit de ndax nag par Thierno ma ndeysaan su Diop dañu woon ma indil big ak fooy dinaa la jàngal bëri bu ma lay jàpp làmb di jeex. Thierno Ndiaye ak déggam ni ko moom bu la jàppee nag waaw léegi nag loolu laay versé waat foofu ni ko ne ngeen daf may duma daf may daan bu ma ko duma daan ko nag. ñu muñ rek. kon nag jàpp leen ni da ngeen war a muñ te da ngeen di muñ incha allah. dañu muñ Badou. ci kattanu yàlla da ngeen di kenn mënu leen tee kon le 8 mars da ngay këpp réeru parcelle bi. le 8 mars ci barke Baye Karim Mbacke yàlla na lépp di sama ndam lépp na mars ci kattanu yàlla le 8 mars maay borom maa ko moom incha allahu rabbi maa ngi waxirlu ci yonent bi di ñaan ci Serigne Touba ci doole Cheikh Ibrahima Fall Lamp ci kattanu Baye Karim le 8 mars yàlla may ndam ci kawam mais wax ju bëri ji ay Batista keneen ak keneen bëriwuñ nañ wax lu leen neex mbër yàgg naa wax bu ñëwee këpp wax signature yu tàng xotteeku man nag du ma kenn ci signature du ma wax loo xam ne bu subaa du ma génn ndax kii daan ak daan suñu borom bind na ko ba pare damay sabab lu gëm ni mën a rek waaye xaw ma koy daan waaye daal Franc dina ma daan waaye du may daan du ma daan ñàkk jom Franc daal dinaa ko daan su ma koy daan du ma ko daan ci moom mooy daanu ci kattanu yàlla ah dégg nga ma. dégg naa la kay. ok. waaru kay laa def. Ah? mais nga jël nga jël combat. Mhm. Sénégalais yëpp ni jël nga risque. signé nga combat bi rek ñu ni jël nga risque lan mooy nekk sa xel. Sénégal nan ngay waajalee combat Sénégal bi ñu ne France ko mën bi mu ko dóoree nu mu dikkee ci yow neexul ba romb lool. xanaa xamoo bëree kuñ jox favori daa neex loo def day feeñ moom lañ jox favori ndok waaw yàlla na ma suñ yónenti yàlla Mouhamed jox ma jox ma favori man jour ba Seydina Mohamed lañ ma tuddee may waxirlu ci moom bis ba xama rek waaw doon favori waaye favori nit ñi moom ñoruma ndax nit fa favoriser nañ ko ba tàyyi bu ñëwee ma yóbbu ko top 5 man bi may bëri jeeg ama magam zil magam euh, euh, Paate Balde daje nañ mu ne ma sama papa li mu jël xamu ko ndax ñoom waa mu suñ gëm ne ama mun na maa daan ndeysaan xool na ma daane na mu yombe guy gi ci boppam ki kàddoom moom moo ni bi muy bëri si ñoom père Mor Fadam ak ñoom ñëpp ñoo doon wax ni ñaari tablette Nifiri la naan nee na ndax ñëpp gëmuñoon ni mën na maa daan ma ne dama koy may mu jàpp ma yóbbu ko top 5 bi mu jàppee aw ma fu ma jàpp mu jéem maa yanu mënu maa yanu mu caxabal ma jéggi mu kott ba ca des ma jaaxaan làmb day tëddee noonu da ngay mën nit foofu mu daan la tax barke alxuraan ñooñu bi ñu may daan maa leen mën dara jëy Seydina Mohamed bi ñu may daan maa leen mën million fois te nag bisu làmb dóor bokkut ak ay arène simple simple ngay sàmba yaa ne ngaan buuxante di daan bokkut bis ba kurpeñ kurpeñ dañuy weccoo de mbokkam dañ koy waajal indi samay mbokk dañ may waajal indi li ma jaaxal nag mooy mbër mosu koo touché ndax rapidité waaj waaj nga ci côté boobu euh, mbër yi doon bëreek moom ñooñ ñooy bëreek moom man maay bëre ak moom mhm. mbër yi mu doon bëreel ñoom la man lay bëreel mës nañ koo touché ak mësuñ koo touché yooyu yëpp man compté moo xam li ma compté bis ba jot arbitre yëkkati sama loxo moo xam dama koy touché daan ko moo xam dama koy jàpp daan ko waaye yëkkati sama loxo rek de ci laay liggéey moom lay ñaan suñu borom moom laa gëm moom laa doyloo di dox dem nekk ci waaw. Hmm. Hmm. doole yéen ñaar ko ëpp. allahu alam. mais mais Sall sportif nga am nga expérience yàgg ngaa yàgg ngaa def ay voyage saal bu nekk entraîné nga fa di nga xool mbir xam ne kii maa ko ëpp doole wala moom moo ëpp doole gis nga ko ci ay image loo gis. gis nit ci image mu bombe nii. ku amul expérience moo dul xam loolu. dama ni gis nit mu bombe nga ne dafa am doole boo ko ak doole de mun naa laa jox ay takk ci ay làmb yu romb ka daan na ko ka mu daan ëppee. xoolal fi ka daan na mu ka mu ka mu daan na mu ko ëppee yëf yi ay rëy de doole intense la ci biir lay nekk quoi intense la ci biir lay nekk. moo ëpp doole maa ëpp doole allahu axlam mënuma ko seede parce que bokkuñ dund bokkuñ fu ñu ne bokkuñ lu ñuy liggéey mais sa bis ba après doole dina feeñ jat lu mu la waxoon moom ëpp doole moo ma dàq bëre. waaw moo ëpp fit moom ëpp fit naa ñëw rempli contrat rek ñëw taxaw mu daan ma daanee wu ko doole wanu ma ko ni ko maa ko ëpp doole foofu ni ma ko daanee du ma ñeeru doole wala wala dama lay laajaat. non soo ci tontuwul jat sa mbër. bi ma ko daanee. yéen a waaw léegi d' accord doole daanee ma du ma du ma a tontu. waaw déedéet maa ki a laaj. yaa ma laajoon avant combat bi ma wax la ci dara. waaw d' accord nga ne ko doole la tontu la du doole. non man nekkul man nga war a laaj man maay laaj. waa léegi kon yow man bul ma laaj da ngay laaj mbër mi muy bëre. non bàyyi ma laaj ay question yu yoo xamante ni si ma dina ci tontu suñu la laajee question lu romb da nga ciy tontu. non man doole laa ko daanaka daanaka ma ko doole. non man du man maay tontu bébé. Ah, eh, on va voir nañ wax ci kii rek yàgg franc képp doole. du maay tontu ci loolu. ku dàq bëre. du maay tontu ci loolu nañ ko bàyyi waa àdduna. ku dàq xeex. ko bàyyi waa àdduna. ku ëpp fit. nañ ko bàyyee waa àdduna. loo koy sant. ñaanal ko yàlla mu am tawféex ba bis ba rek. loo koy mujjee wax. ni ko. xool ko am na bis. wax ko wax ko ko. am na bis de. xool ko fii nga ne ko am nga bis. am nga bis de franc waaw loolu dong laa la mën a wax aw ma leneen lu ma lay blâmer parce que de du ma la dépassé te ma nga dépassé ma wala kon seetaataguma say vidéo waaye même boo ma dépassé woon it du ma la dépassé ndax xaw ma loolu man ci discipline lañ ma yar ci teggin maa ngi lay ñaanal tawféex ak taysiir ba bis ba yàlla may ma ndam lu sedd ci sa kaw képp ku jàpp sa juróom-ñeenti maam jaay jeneen maam joo gis donte du sa maam di nga xam njëgam. non moom lu muy liggéey moom la concerné Lamine waaye man li may liggéey xam naa ko bu bés baa dinaa ko won man Modou Lo ma parcelle ba mu nekk sama ambassadeur. ci làmb ji ngeen bokk. làmb ji roi des arènes ñoom daan la man doonagul sama roi des arènes bis bu ma daanet naa ci bokk. bu koy jël di tëdd am bu jëlee sama kóoloo mën a bu koy jël day tëdd dañ koy lëng mu ñibbi. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum monde entier man la Bombardier maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 8 mars incha allah si diggante Franc ak Bébé Saloum euh, maa ngi jox ñëpp rendez-vous ma fa dëgg nee ba Massa.